ñu ngi am mbégte dalal ministre conseiller bu président de la république monsieur Assane Diop ñu ngi lay nuyoo di am mbégte mu rëy dalalaat la si Rewmi FM. ñi ngi am mbégte di leen fay di kontaan di toogaat ak yéen ci waxtaan ci njëriñu réew mi. Mhm. alors tolluwaayu réew mi ci wàllu politique ñu bari gis ne euh, fi mu ne raglu na euh, lan nga jàpp ni moo waral ñu ñu toll fii euh, ci wàllu waxante wala defante politiquement. waaw li ci mën a wax rek mooy. ci at yële passé bi ñu amee indépendance ba léegi bu ñu jubloo ci ay élection dafay am ay werante yu bari eh, te loolu lu normal la loo xam ne la lu jaadu la lu nit mën a dégg la parce que bu ñu demee lu jëm jublu ci lu mel ne jongante eh, lu jëm ci eh, njiitu réew kooku normal na nit ñi mën nañ koo dégg nit ñi bañ a bokk xalaat Euh, ku nekk teg ci taabal ji lii nga yaakaar ni moom moom nga yaakaar ni moo gën euh, candidat bu nekk def loolu parti bu nekk def loolu loolu moo mën sa am euh, nit ñi di ci waxtaan di ci xëccoo waaye danaa nekk problème politique waaw xam ni ñu ngi jëm di jëm ci naka la ñuy defee élection yi code électoral yi ni ñuy bindoo ministère de l'intérieur yelleefu parti yi Eh, nañ ko leeral lu tax lii lu tax laa ñu koy waxtaanee ñu koy waxtaanee ku nekk di xëcc mais li ci ëpp solo mooy dañ ko daan waxtaanee lu mu tàng tàng tàng eh, danañ dem ba am ci luñ juboo parce que mbirum politique la ñuy wax kon kuy wax mbirum mbirum politique di négocier waxi politique di ngeen dem ba pour intérêt réew mi di ngeen mën a d'accord ci ne kon élection yi nañ ko defee nii. noonu lañ ko daan defee ba léegi waaye dafa nekk ni élection yi dafa xaw a xaw a am lu ci rax ndax nekkatul rek débat waxtaanu politique dafa am waxtaan woo xam ni tam mi ngi jëm ci mbirum yoon te bokkul eh, li jëm ci mbirum yoon nañ ko bàyyi yoon doxal ko na ko war a defale doxale teg ko ci yoon li jëm ci mbirum politique nañ ci génnee mbiru parti yi eh, léegi nañ ci dugal mbiru parti yi waxtaane ko mbirum parti yi loolu donc lëlee yoon la yoonu parti yi nekku ci ñaari nit ñoo am problème nañ dem régler ko tribunal te yaakaar naa ni ñi ko séqal ñëpp d'accord nañu pour ne nañ dem tribunal mu àtte ñu mu jeex man gisuma kenn ñi ngi ko séq ñu wax ni duma dem bugguma ko waaye en tout cas nangu nga pour dem tribunal kon nañ bàyyi tribunal régler loolu mu des nag léegi lu jëm ci euh, euh, euh, élection yi lu jëm ci élection yi mbirum politique lañ ñu waxtaane ko ba ñuy jubóo ci lépp pour jëm ci élection yi. problème bi nag mooy dañoo jàpp ne yoon moomu dañ ko politiser manipuler ko ba nga xam ne jubluwaay bi xëy na mooy fexe gàllankoor benn adversaire pour mu bañ a bokk ci élection yi ñu jëm. waaw xam nga nag mbir mi ku nekk euh, fam la gën a fam lu gën a baaxee ci yow rek nga koy xëccee euh, euh, nam gën a yembee ci yow rek nga koy jéem a expliquer le waaye wax dëgg yàlla lii ñu tiim nii. Euh, euh, jiiñaate ci yomb na trop parce que ku mu neex nga jiiñ sa morom lu nekk euh, waaye li ci ëpp solo mooy je crois que loolu moo moo moo nekk li nga xam ne moo ñu war a itteel tey mooy li nekk ci politique nañ ko wax ci politique li nekk ci mbiru yoon ñu bàyyee ko yoon buñ ko xajalee noonu rek xëj na wax ji dana wàññeeku waaye buñ bëggee jaxasee ñaar yi wax xaj gi wax ci day day di lëndam loolu mooy ci problème bi kon nañ ko delloo Euh, fi ñu ko daan jaarale rek waxtaanee mbirum politique waxum politique génne ci leneen. Mm-hmm. fitna bu yeggseegul itam mi ngi xeeñ lool ci réew mi euh, ñu bari société civile bi notamment jàpp ni ligne ba ñu warul woon a weesu sax fi mu ne ñu ngi koy romb rëdd ba ndax réew mi léegi tey mu dugg ci guuta lan nga gis ne moo ñu ci mën a génne fi mu toll nii. man yaakaar naa ni fi ci toll nii comme li ma njëkkee wax nañ fexe ba lu ci nekk ñu teg ko palaasam benn ñaar kilifa diine yi. dañ daan yëkkati seen kàddu te ñu koy yëkkati pour jàmm ci réew mi euh, ñett euh, société civile bi taxaw taxawaayu bañ a parparloo ci kenn waaye wax li nga xam ne moom moom moom la xaar ci ñoom euh, waaye buñ ci xawee sëngeem sëngeem fenn rek day daal di yàq waxtaan wi te kon du du baax donc na ku nekk def li nga war a def ak na nga ko war a defee ak kayit yi nga xam ni moo la tënk lim la wax nga defee ko kon defe naa ni yu bari dana wàññeeku parce que bu fekkee ni euh, euh, da ngay àtte euh, fexeel ba buñ la jiiñ dara waaye boo defee àtte sot sos rek sot rek yaa ngi bëgg a yàq donc képp kuy àtte rek fexeel ba buñ la jiiñ dara ci àtte bi donc taxawal ci digg bi waaw bañ a jeng leneen lu tax aussi situation politique bi xaw a doy waar bokk na ci mbiram ñetteelu candidature euh, société civile bi dem ba euh, def campagne buñ tuddee jàmm gën euh, troisième mandat ñu bari itam jàpp ne xëy na président bu ñu yeewi woon ci loolu dal dana gën a am ci réew mi. mais dama jàpp ni wax jooju dañ ko jiital trop ci débat bi dama yaakaar ni ñun sunu réew conseil constitutionnel. moom mooy wax ci jamono ba mu ko soobee buñ ca tolloo kii mën na nekk candidat ak kii mënul nekk candidat je crois que jiital wax ji tey ci kanam mooy yaa ngi indi problème boo xam ne waragul egsi kum neex fi mu nekk nii nga ni bëgg naa nekk candidat bëgg naa nekk laa wax de ki nga xam ne maanoo de ci moom daf ne parti di xaar ba conseil constitutionnel wax bu fay ñu fa yeggee ñu wax ki mën na nekk daal ki mënul nekk candidat lii moo tax waaye boo ko bëggee def tey tey tey problème eh, yaa ngi naxal langue gi eh, langue politique bi moo tax ma jàpp ni kooku warul nekk loo xam ni moo ñuy tardeel ci waxtaan wi eh, parce que dafa war a nekk lu ñu war a bàyyeeg ki nga xam ni moom moo ko yelloo muy conseil constitutionnel bu ñu fa yeggee moom ci boppam dana wax ku mën a samp ndënd ak ku mënul samp ndënd teel cee waxtaan moom defe naa ni euh, wax lu la neex rek la. alors Sénégal mi ngi doog a fégal ci bopp Union africaine ñu jiite woon ko à travers président Macky Sall mu fégal njeextalu ay bés bu ñu génn lan nga euh, foog ni moom lañu ñu war a gën a tënkatee euh, ci présidence sénégalaise boobu ci ci bopp Union africaine. waaw bi mu xamee bi nga xamee ni président Macky Sall jiitu na Union africaine muy kuréel bi nga xam ni moo moo ëmb réewu Afrique yëpp. Euh, euh, am na liggéey bu am solo am na liggéey yu bari yu am solo yu mu fa def mais dama ci am nag yu ci jukki euh, xam nga balaa nga am sa indépendance dëgg dëgg dëgg da ngay da ngay am dund bu doy dund bu doy boo amee dund bu doy commencé ngaa am sa indépendance te ñun ba léegi ci Afrique léeg-léeg ñu ne dund bu doyul fii doyul fii donc li tax président Macky Sall jiital loolu ci bëri bi mu doon bëri ci bi nga xamee ne mooy jiite Union africaine mu doon pour que Afrique mànkoo nekk benn euh, boole suñu xam-xam ak suñu mën-mën ba xiif génn Afrique euh, mu bañatee nekk loo xam ne daf ñuy jaaxal loolu mooy premier indépendance boo xam ne am na importance itamin sa kaaraange kaaraange réew tam ci indépendance la bokk nekk na loo xam ni tamit président Macky Sall bëri na ko bëri boo xam ni euh, macha allah am nañ ci am nañ ci yaakaar bu baax parce que manko am na ci. ak li nga xam ni euh, euh, ñaar fukku réew yi nga xam ni ñoo nga xam ñoo ŋànk ci ci seen taxawaay koom-koomu àddina bi président Macky Sall bëri na ci bëri bu méttee méttee méttee ba nga xam ne lu bon bëri ñaar fukki yi ko ŋànk lu bon bon fukki yi nangu nañu pour que Afrique bokk. te loolu loolu li ñuy jural ci njëriñ bari na lool ci ci ci koom-koomu àddina bi donc waaw g bi donc loolu nekk na loo xam ne itam bëri na ko bëri boo xam ne macha allah am na ci résultat yu am yu am solo je crois que boo jukkee loolu déjà rek euh, am nga euh, euh, li nga xam ne mën nga sukkandiku bëri na waaye yooyu laa bëgg jukki mm. mooy ci ëpp importance ba nga xam ne pour man président Macky Sall dox na ko parce que itamit nag kaaraange am na solo dara ci biir ñett yooyu nga jukki lan nga jàpp ne mooy doon jeextal li pour Afrique mais aussi pour Sénégal. man de euh, euh, jàpp naa ne mënuma wax benn. parce que moo waxee benn dafay manqué parce que yoo xam ñoo ànd. parce que kaaraange gi ñoo ànd. kaaraange dund ak kaaraange réew mi ñoo ànd. benn mënu cee bàyyi sa morom parce que tey bu xiif méttee rek. Euh, kaaraange euh, waaw dafay dafay metti day jafe parce que nit ñi dañuy daal di fippu waaw euh, boo mënul tam am kaaraange réew mi ba nit ñi tal seen bopp ba mun a indi luy dundal réew mi itam du sotti donc foog nga nga nga nga boole ñoori ñaar yooyu boo ko boolee nag ci ngay gën a mun a taxaw moo tax mënumaa wax benn mm. may ma wax ñaar mm-hmm. alors Sénégal jiite woon Union africaine ñu bari di ñuy dégg ñuy wax lan la ci Sénégal gagné lan mooy njariñ li Euh, njëriñ li mooy d'abord euh, liggéey ba fa président Macky Sall liggéey ba euh, naataangoom yëpp nangul ko ni njiitam bii day bu dul bi gënit bokk na ci yi gën ci ñi nga xam ne jiite gëm nañ Union africaine muy benn ñaareel bi itamit njëriñ bi mooy lan dina tax fi mu nekk nii kuy wax jëmale ko ci bitim réew di nga ah Sénégal de bi mu ko jiitee lii amoon na Sénégal de bi mu ko jiitee lii amoon na loolu yëkkati na turu Sénégal ca kaw euh, euh, ak tamit euh, comme ni ma ko waxee sànq mbirum gv bi am na importance trop parce que dina tax nit ñi gën a nangu ni ci ci ci ci bi fi président mac Sall nekkee ci li ñuy duggee ci G20 te loolu dana yëkkati tamit turu turu Sénégal. te mun naa wax tam pour njëriñu Sénégal mu dana Macky Sall génn yu bari génn euh, ci biir walis bi muy yore dana ci yoraale euh, dossier Sénégal mm. te am na yu ci feeñ bu baax ci ay financement mm-hmm. alors ñu jeexal ak euh, xëyu ndaw ñi euh, mës nga topp toolu mel noonu ci Sénégal jamono yee itam nga ànd ak waa MEDES liggéey ci forum du premier emploi bi ñu doon amal nga jeexal léegi waxtaan ak ay ndaw yoo xam ni forum bi yitteel na leen mais xëyu ndaw yi également soxal na leen loolu nekk problème pour àdduna bi yëpp Afrique mais Sénégal également euh, lan la ñu mun a jàpp ni tey réew mi def na ko ci ci ay jéego wala ba tey ña nga fañ ne woon. waaw li ma mën a ci loolu mooy président Macky mu bi muy jiitaloon na problème mu xëy ndaw ñi mu nekk itteem mais mënoon nañoo wax rek na day campagne waaye bi ñu ko falee ba pare dafa commencé teg ay jéego jëmale ko foofu man mun naa seede ni euh, président Macky Sall waxtaanoon na ci jamono 2014 ak euh, commission économique pour l'Afrique muy kuréel bi toppatoo mbirum koom-koom ca Addis Abeba team Afrique yëpp waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale Sénégal lu jëm ci mbirum emploi ba ñooñu ñëw fi ànd ak ay waa Sénégal yu xarañ ci mbirum emploi ñu def liggéey liggéey bu mucc ayib boo xam ni euh, tax na euh, yeneen politique yi jëm yëpp jëm ci affaire emploi am fu ñu sukkandiku pour avancer euh, ci kaw loolu yi tamit mun nañu wax ni président Macky am na kuréel yu bari yoo xam ni ñi ngi fi yoo xam ni teg na ko fi wala mu tëggaat ko ba nga xam ni dana gën a am njëriñ mu jëm ci Euh, euh, xëyu ndaw ñi mu jëm mooy lu jëm ci euh, ANPEJ mu jëm ci DER mu jëm ci ADPME ak yeneen yi ko yooyu yëpp liggéey la bu jëm ci xëyu ndaw ñi ak tamit jéego yi mu yëkkati yu baree bari ci fonction publique recruter ñu bari pour pour pour pour ci xëyu ndaw ñi wëlbati ko yi tamit waxtaan ak secteur privé bi Euh, itamit ba ñoom ñu gën a taxaw ci xëyu ndaw ñi indi na ci lu mel ni état employeur euh, ñu tëggaat ko euh, mu gën a mu gën a dimbale entreprise yi ñu gën a mën a jël ay xaleel mais itamit bi mu demee ba def yooyu ba pare teewul mu woote waxtaan bu mag ak ndaw ñi waxtaan ak ñoom bu baax a baax a baax déglu leen bu baax a baax a baax wëlbati fu daal di teg nag xëyu ndaw ñi def ko programme bu taxaw boo xam ni mu ngi ko tëral pour que ndaw ñi euh, gis seen bopp ci li muy wax ci loolu am na banqaas yu bari ñu ngi ci di ci liggéey euh, euh, ci ci xëy yu bëree bëri waaye yi tamit affaire xëy ndaw ñi buñ jàpp rek ni ñi jëm ci fonction publique la ak ñi jëm ci privé bi mais am ñoo xam ne seen liggéey bopp créer seen entreprise bopp am na ñoo xam ni euh, euh, euh, seen bopp seen ñoom rek la ñuy utal seen projet bopp yooyu yëpp dafa nekk ci biir waaye li ci ëpp solo itam mooy président de la république li mu bàyyi xel xale yi nga xam ni ñi ngi ci ñi ngi ci biir réew mi nekk ci li ñuy faral di wooye àll bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi bay ñi ngi sàmm ñi ngi ak yooyu président Macky Sall dafa yokk budget ministère de l' agriculture yokk budget ministère de l' pour gën leen a may kattan ñu mun a teg ay programme yoo xam ni dañ mën a dimbale euh, ci xëy bi xale yi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci tool yi ak ci càmm gi ak yooyu te yooyu dafay ànd ak transformation maanaam maanaam soppali li ñu bay wala li ñu li ñu jëlee ci ci ci ci ci ci nag yeeg euh, xar yeeg euh, béy euh, defar ay meew bu dul gaaw a yàqu defar soow defar fromage yooyu yëpp dafay nekk ay xëy yoo xam ne daf ciy judd ak tamit nga boole ci li ñuy wax agroforesterie maanaam euh, meññeef yi nga xam ne mi ngi ci ci àll bi ci ñu war cee mun a euh, sukkandiku bu baax euh, danaa ci wax bi nga xam ne c'est très important mbirum buy bi par exemple buy buy bari na Sénégal trop Koungheul rek déjà boo fa demee ci département bi quatre cent tonnes buy at mu jot moo fay jóge ñëw Ndakaaru mais kooku ay xëy yu bëree nga fa mm. dañuy organiser war a organiser xale yi mm-hmm. Euh, ay coopérative ci ci ci dëkk yi euh, ñuy aji buy bi bu ñoree euh, amal leen ay ay ay ay magasin de stockage utal leen ay machines yuy génnee pëndëx bi defar ay jus utal leen machine yuy defar diwlinu xooxu buy yooyu yëpp ay njëriñ la yoo xam ne boo ko waxee ni nit ki daf koy kii mais boo xoolee ci biir alal ju baree ngi ci xaalis bu baree ngi ci te mun na dimbale jeunes yi bu baax je veux dire par rek li ma bëgg ci wax rek mooy président Macky Sall bàyyi na xel xale yi jàng nekk ci taax yi xale yi jàng nekk ci biir réew bi xale yi jàngul te war a am seen wàll ci xëy bi amu ci kenn koo xam ne fàtte na la. Euh, secteur privé bi tam mbir mi yitteel ko la des doon def te nga jot caa am benn taxawaay ndax jàpp nga ne yooyu itam ay buntu solution la. waaw ndax euh, daje bu mel nii li ñuy wooye premier forum pour le premier emploi maanaam ndaje bi nga xam ni eh, ñi fay dem mooy ñi wut seen xëy bu njëkk eh, am na njëriñ ci ñoom parce que boo bëggee am xëy di nga bind kayit boo xam ni ci ngay wane yaay kan muy CV eh, kayit boobu du ñëpp ko mën a bind donc foofu ci forom boobu xale yi dinañ jàng nu ñuy defee CV ñaareel bi dañuy jàngal xale yi bu ñuy ut liggéey toog ak ki leen war a bind jël leen naka la ñuy waxtaanee ak moom ba kooku wóolu leen Euh, kooku itam jàng nañ ko fa lu muy xat-xat ak tamit euh, daje boobu euh, may na xale yi ñu daje ak entreprise yi waxtaan ak ñoom bu ñu wax leen ne leen ah bëgg nañ lii bëgg nañ lii bëgg nañ lii bëgg nañ lii bu ko defee ñoom ñu waxtaan xam nu ñuy wutee liggéey bu xasee ba xam am sa lijaasa xam nu ñuy wutee liggéey ñu jàngal la ko yaakaar nañu ubbil nañ la bunt te loolu moo doon waxtaan yu forum pour le premier emploi euh, je que am na solo te am na ñeneen tam ñu koy jéem. jërëjëf ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM monsieur le ministre conseiller Assane Diop jërëjëf toujours kontaan am ak am mbégte di toog a yéen di waxtaan. Eh, ci li nga xam ni mu ngi jëm ci jëriñu réew mi jërëjëf. ci jëriñu réew mi jërëjëf.